respect, ainsi de la délégation qui m'accompagne. Je prends la parole ici au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République et au nom de toute la délégation qui m'accompagne, y compris le ministre Abdoulaye Déby Baldé, qui est un ami de Cheikh Ibrahima Ba. Je voudrais ensuite dire en quelques mots les raisons de ma présence ici. L'année dernière, j'avais souhaité être là. Malheureusement, la veille, j'ai été un peu souffrant il est très difficile quand on est malade d'être devant une foule. Je me suis donc gardé de ne pas venir en demandant au préfet de le faire à ma place. Je suis donc venu cette année rendre témoignage témoignage sur un homme que j'ai appris à découvrir ici. C'est pas évident, mais j'ai découvert en lui, outre ses qualités intellectuelles, parce que vous le savez bien mieux que moi, Cheikh Ibrahim Ba a fait de très solides études, ponctuées de diplômes que beaucoup d'entre nous peuvent lui envier. Mais vous ne pouvez jamais vous rendre compte que ce monsieur a autant de diplômes. Tellement il est simple et d'un commerce facile. On a même du mal à se demander si c'est vraiment lui le calife de Godiba. C'est exceptionnel de voir un homme avec autant de responsabilité, mais aussi avec autant de simplicité. Et je suis venu aujourd'hui pour lui rendre témoignage. Et ce témoignage, je le dis en toute honnêteté parce que je ne sais pas tricher, malheureusement. Je ne sais pas cacher ce que je pense. Je dis plus haut ce que je pense. Et je pense que M. le chef Ibrahim Abba est un modèle qu'on devrait présenter aux jeunes Sénégalais. Et je suis certain que ses disciples, ceux qui viennent le voir, ceux qui sortent de chez lui, ne sont frappés par cette simplicité et sont frappés par son érudition c'est cela que je voudrais souligner d'emblée. waaw gouverneur de région Jean-Baptiste Coly na képp ku fi teew te sa daraja toll mu lay nuyu di la tatagal rawatina ñi nga xam ne ñoo fi teewal xalifa al islam rawatina Cheikh Ibrahima Ba ba nga xam ne moom moo toog fii ci Ngodi Ba nekk fii mu xadamu Baye jiite fayda bi fii ci région Kaffrine mu ngi nuyu ñëpp jullit fi teew mu xadam ñëpp yëpp ku nee na li tax mu ñëw fi dafa gis ci moom ay jikko yoo xam ne ay qualité yoo xam ne yu mu naw lool ci koo xam ne mënoon tëgg dënn fëgg parce que li ko yàlla may ci lijaasa ci njàng mu xóot mu sori ci xam-xam ci liggéey bi muy liggéeyal fayda bi partout jàmm bu jot dina koy seetaan ci télévision yëpp ci àddina bi koy invité muy défendre islam ñu koy invité Amérique mu fay defal di défendre islam ñu koy invité France Italie Allemagne partout Cheikh Ibrahima ci français ci anglais ci arab ci wolof muy yokk yoon wi mu ne ku mel noonu mënoon naa fëkk dënn jiisal boppam waaye dafa gis ne moom dafa woyofal boppam lool lool lool nekk nit ku baax nit ku yaatu loolu moo tax mu jàpp ne moom daaw moo fi mën a boppam waaye wéradi yaramu sutati moo tax yegg siiw lool ren nag lu yàlla mottali mbébétam mu ne woon dina ñëw ba fii pour témoigner maanaam wan aska bi lépp cofeel li mu am ci Cheikh Ibrahima rafetal liggéey boobu pour témoigner moom pour wane ak kilifa yi ne Cheikh mu ngi def liggéey bu mucc ayib fii ci Sénégal yëpp ci mu ne mu gëral nit ñi ne mu ngi nuyu kilifa gi mu fi mu fekk ko fi muy xaritu Cheikh Ibrahima muy le ministre Abdoulaye Bibi Baldé nga xam ne bi mu ñëwee wax dëgg yàlla tatagal kilifa gi dugal ko ci nekk bu gën ñu présenté wu yàlla def na ñoom ñaar ay xarit lañu mais ñu ngi dajaat fii ci keppaaru Cheikh Ibrahima fii ci Ngodiba kon sëñ bi loolu la gouverneur indiwoon représentant xaalis muy nuyu bu sell bu kawe ki nga xam ne tey moo fi toogal chef de l'état bu waxee mën ngeen jàpp ne kilifa gi chef de l'état Macky Sall moo wax rawatina bi nga xam ne bi nga toog ànd kilifa yëpp muy le préfet du département les chefs de service du